sabab lu woote gi inciter ñu ñu ñu ñu ñu ñaaxaat le nouveau gouvernement pour ñu dimbale ñu parce que ñun aussi pendant ces 10, 10 ans yi passé am ay effort yu extraordinaire loo xam dañu def pour ñu gëna formaliser secteur bi ñu nek moy secteur ferraille moy njënd ak njaayu ferraille mais njënd ak njaayu ferraille bobu tay mu ngi koy gëna mëna formaliser vu que amna ay industrie yoo xamante ne nii ñu ngi ñëw di samp si dëkk bi di fi liggéey xool industrie yooyu nan lañ leen di jàppale ba nga xamante ne nii matière première bi nga xam ne moom la ñu soxla dootuñu ko jéggaani comme que am nous avons bi ñu Nous nan lañ koy que nan organiser pour que matière première boobu di dem vers les industries. am nañ dépôt yu nekk Thiès dépôt ne mais à part dépôt nous aussi am industrie, ay industries yoo xamante de qui, ngi fi am ngi yu nekk Sindia bu nekk aussi day permettre. Nous hein, appelons davantage le nouveau ministre de l'industrie le docteur Serigne Diop mooy que bi nga dans chaque région du Sénégal région où nous avons des pôles industriels mais industriels industriel aussi pour nous, mën il faut que matière première bi nga xamante ni ñoom moom la soxla pour mëna développer industrie ñu xol nan lañ koy encadrer ba nga xamni matière première bobu day dess ci dëkk bi ñu mëna jappalé industrie yoyu pour industrie yoyu mëna avancer parce que boy xol loolu ay étranger ñoo daan ñëw di jël matière première bi di ko yóbbu seen dëkk di ko transformer di ñu ko indilaatal fii Sénégal léegi aujourd'hui bu dee dafa am ay industrie yoo xam ne dañoo ñëw biir Sénégal installé wu fi dañoo war xool nan la ñuy jàppale industrie yooyu ba nga xamante ne nii matière première boobu léegi ñoom dootuñu ko jéggaani fii si biir dëkk bi la ñuy jël matière première bi di ko fi transformer te transformation boobu daf ñuy dimbali si ñaari phase day tax xalé yi nga xamni ne ñoo daan jël gal ak yoy dootu ñu jël gal parce que instant bi industrie yu jot nek Sénégal ak dépôt agréé rek amna lu ëpp ñaari junniy sénégalais yo xamni ñu ngi fiy liggéey mais ak politique bi nga xamante ni ñun mom lañu mom lañu nas té gouvernement buñ ci jappalé davantage ñoom seen yéene moy région bu nek bir Sénégal ñu monter fa des pôles industriels dañu tax ba nga xamante ni nii euh, création emploi bobu ñu doon wax day day day gën ëpp li nga xamante ni ak aussi Sénégal mënuñu ko fi lak dañu xol nuñ koy organiser ba nga xamante ni ay sénégalais bon teint ñoo jël diko yobbu bitim rew diko ko mais jaay bobu ñuko fay jaay aussi day dimbali déjà l'économie parce que lolu day indiwaat des transferts de devises devises yooyu aussi daf ñuy dimbali ba nga xamante ni suñu balance commerciale day équilibré mais aussi état bi daf ñu war a jàppale ba nga xam ni dañu war a protéger les nationau protégé les nationau mooy li nga xamante ne ni bu ñu bàyyi ñu koy jël di ko yóbbu. ñun nag suñu mbébét lool la pour gouvernement bi xool nu ñu si jàppalee accompagner ñu nga xamante ne ni lépp dañ koy produit si biir dëkk bi.